Dieng. waaw woo ma. yaa ko waroon woo non non non maa ko waroon mais woo nga ko woo ah moom daal. moo ma ne woon bul jënd xar bul jënd dara. non non tey eh, nag kon il faut mu réagir tey. ah waaw parce que suba nga suba nga war a yóbbee sas yi. waaw waaw ku la joxul tey rek xamal na vraiment daf lay taal. ah Juba Diagne jaxate. Jongo Diagne jaxate c'est l'heure. waaw jot na ah ana ma dem Aïda Aïda Jong. ah sa yaay kooku nag. Eh. waaw waaw mère Aïda Jong mu ni la seetaan. waaw mais. nee na Babacar yaay mbay. xolal sa mbokk la. Ah. sa mbokk bu la jege la lijjanti ko. sa mbokk la de. aywa waaw sa doom ngi nii. Ah. da ngeen a woon. lii moo tax ñu moom nee na. Ah. mbokkam nga bu jege. nel mbay. waaw mbokkam laa booy wër mbokk. fii Sénégal Dakar. maire Aïda Diongo mooy sa yaay. yaay euh, da ngay wadaan te moo suukar koor ba yóbbu. waaw kay waaw kay mbay mbay mbay moomu. yaay ay na jokkoo sa yaay waaw kay Kouthia yow moom sa jaan wàcc na. waaw jeex na wóoy ma Kouthia fii Kouthia yoonam nekk si. yoonam nekk si. jeex na léegi Mbaye madame promotion mooy ñëw. Ah, tey ruus tey ruus na. da ko kase booy noir rouge. jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay bëggee émission bu ay dembo léegi nag nee la tey comme ni ko Mbaye di waxee rek damay fabeere damay ñëw sama gaamu madaar bi gaamu madaar moo ngi nii madaar liquide mi ngi nii eau de javel bi lenn rek moo tax a jóg gaamu madaar waa gaam la lenn rek moo ko tax a jóg setal lu tilim lu oos lu dand moo ci aay moom ak parfum bi yëpp néeg saadaee douche yëpp macha allah waaw damay daal di ñëwaat ci li nga xamante ne bi mooy gaamu béyu mét di mboq assise yi nee naa la xam nga bu gaam jëkkoon lii day manqué lee manqué mais lii nag moom gaam la ku nekk xam na ne boo koy diw bu ko saxal di utiliser macha allah picc ak taas ak lépp lay dindi parfum bi yëpp dafa baax pour xale moo ko tax a jóg gaam baa ngi noonu li nga xamante ne bii nii mooy l'écran moom tamit gaam la daf ñoo indil lait bi nga xam ne mooy céréale bi indil ñu aussi li xamante ne bii mooy meew bi am na bu mag am na bu ndaw gaam la jeex na gaam la am na pëndax am na ndox jeex na tàkk gaam la ñu ngi nii nag xam nga bu ñu nee koor rek estomac yi day daal di yëngatu mais ak l'écran moom macha allah gaam baa ngi noonu ñëpp nañ ko utiliser xale mag ndaw yëpp damay ñëw ci li nga xam te ne mooy crispo crispo gaam la waaw dëgg la gaam la parce que daf ñu indil biscuit ñu ne ko biis ko mu biisaat ko daal ñu indil li nga xam ne nii mooy bonbon indil ñu nag li nga xam ne trois parfums la ñu ci indil indil nañ ci li nga xam ne mooy vanille bi indil ñu ci li nga xam ne mooy fraise bi indil ñu ci aussi li nga xamante ni mooy chocolat kon kenn du jaaraama gaam la moom la gaam la eh, <laughs> mais xoolal wuy ma tey tey nag dama nangu. waaw Mati wax dëgg yàlla. fa dafa fa la non Mati yaa ngi toj télé bi. waaw rédaction am nga fa client. administration am nga fa client. dëgg la am nga fa client. internationalement ba Qatar am na ku ma woo. dëgg la nee na da nga solal jabaram. waaw jouru mariage am ba tey ay mbokkam ko koy laaj ku la ñaw. dëgg la dëgg la waaye numéro bi ma jaara sa jëlal. waaye bala may nag da wax ci kanam gu yaay ñu Ndeye Amy Diop moo fi jaar. macha allah wala wala make up nii waaw moo make up nii. waaw xanaa bi dafa xew xew xebil. waaw bi ñu def nii lan la bi mooy lan. bi laaj ko Amy Diop daal moo koy def bi mu dugg. moo koy créé daal ah non waxuma xef ni nga ci koo nii Ami ah? Diop moo ko def Ami Diop. Ami Diop Ami sa ma sa faras ba. Ami Diop mi ba. Ami Diop ma sa bopp ya. Ami Diop mi ngi fépp Ami Diop fu nekk la fa yàlla rek a ko mën. Eh, jëlal numéro bi 77 eh, la 235 83 88. 77 235 83 88. man dama jënd tegoo cash de. ko kay. Mm. instant yi ku may envoyé la boo ko dugalu Tigo Cash du ma ko jël. jeex na eh, Tigo Cash koy may Tigo Cash. ah ñanga. kaay yaa booy kaay lu amul seen du la rey. naa la rey ah. way. bëy na ko rey. Eh, woy na ko rey. que Tigo Cash sa dièse 150 dièse Tigo Cash foo dem moom nga koy fekk 14 régions ñoo am Sénégal 14 régions yëpp am na Tigo Cash département yi ak fi nga xam ne nag moom mooy euh, ci quartier yi Tigo Cash daal mu ngi ci partout fépp foo xam ne dañ fay def transfert d'argent Tigo Cash taxaw na fa mbokk yi jot lu a tuuti 5000 francs mën ngaa am njëgu 100000 francs boo xam ne suukar koor la te Tigo Cash da fay facture SDE. fay facture Sénélec. waaw Tigo Cash da ngay jënd carte Woyofal. Tigo Cash da ngay fay sa facture maanaam li nga xam ne nag moom mooy euh, boo demee ci euh, euh, Educa OL yi. wara ci hypermarché exclusif yi ak ngay def abonnement ay DCTV yooyu yëpp moom tamit da koy mën a fay. maanaam lépp loo xam ne transfert ko def. moom pare na pur def ko. ba pare génne un million. Ah. pour suukaru koor. chaque jour. mën ngaa jot cent mille francs. Tigo Cash daal yomb wóor na gaaw na yomb na ci jeez 150 jeez Tigo Cash mbokk yi ñu am mbégte contentement di gërëm nag euh, bu ñu sante yàlla ak yonent bi ak Seydina Mohamed euh, sallallahu alayhi wa sallam paix sur ñu ngi dellu di gërëm nag njabootu Cheikh Omar Foutiyou taal yëpp di gërëm suñu bàyyi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murid waaye tamit di ziar ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes ak Pape Malick Sy bi yor kaddu kër ga Serigne euh, Abbas Euh, Mbacke di xalif bu Daaru Muxti Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye Serigne Mame Abdoulaye Thiaw Laye xalif bu Laayeen Serigne Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass ca Léona Niassène imam Cheikh Cissé imam ratib bu Medina Baye ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Bekay Kunta xalif général bu Ndiassane Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif omarien ak Cheikh Omar nga xam ne mooy ambassadeur de ngi koy ziar Alaaji Karamba Medina euh, euh, nekk foofu nag ca ngi koy ziar Thierno Bachirou Tall ziar nañ ko wax nañ ak Serigne Mounirou Diegane xalif bu Serigne Amadou Baro Diegane ñu ngi koy nuyu ak Chérif Haya Aydara nekk ca Nimzat euh, ñu ngi koy ziar waaye tamit Serigne Mounu Serigne Mohamed Lamine Ngom nekk ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu Mame Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé xalif bu Pire Serigne Mame Abdou Dramé xalif bu Nand Serigne Mame Abdou Cissé xalif bu Jamal Thierno Madani Tall xalif Thierno Mountaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom Daaru Abdourahmane Bari nuyu nañ ko Serigne Abo Mbacke xalifu sëñ Fallou Mbacke Serigne Fallou Mbacke docteur docteur ci Zahir ak ci baatin ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram euh, di ko ñaanal tamit jàmm ak teranga mu yàgg fa loolu te wér ak jëwriñ Moustapha Sène ñuy jël nuyoo di ko teg ci loxo mu joxal ko sëñ Fallou Mbacke docteur yàlla na fi yàgg te wér alaaji Cerno Sama Sama mara bi sama baay la yàlla na fi yàgg te wér imam Chérif si yow cere l'islam la nekk ñuy gërëm gërëm suñu baay di góor gi Samba Ndiaye nekk nag euh, président des imams yi nekk sa Ziguinchor yëpp président des enseignants arabes yi nekk Ziguinchor takkusaanu sëñ Babacar si rabi yàlla taala anhu ngi koy amal ay bés bi nga xam ne nag moom mooy bu ñu waree ba ay bés dellu si ma ngi koy amal sa Ziguinchor imam Fansou nekk nag ca Bignona di xalif général de la communauté Joola ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalif bu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi koy ziar moom tamit Cerno Bokar Alpha ba ca war a fa nekk Cerno Mamadou Arama Gaye ca ñànk idi alaaji Mouhamadou Gaye nekk ca Bourtefesque Serigne Habib Gaye moo dama Serigne Mansour Sy alaaji Ousmane Ndiaye ajaratu bu sa Cissé Serigne Sugu Waadaan Waliou Kamine bi seexal papa Awa Kara Cheikh Adama Niang borom xecc gi ñu ngi koy Karim Mbacké nag nekk ca Popenguine ñu ngi di ñaanal fan bu gudd ak ci barke yonent yàlla Yeesu Kirist borom xel mu sell Fatima Fall responsable politique nekk suñu marraine ndar ndar bu mag bi yal ko yàlla defal jàmm responsable politique bu mag nekk foofu ca ndar yal ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram chef religieux dëkk ca Budi ak sama yaay Adja Kinesi bu Serigne Cheikh Anatine Si Al Maktoum bi ñuy jooy ba tey te noppi guñu yal na yàlla alaaji ibrahima mbaye xalilullah ak soxnam soxna fatou mbay ñu ngi koy ziar alaaji aala mbay bëgg mbaxal nekk nag ca sarekunda ñu ngi koy ziar ak sëriñ góora sëy serviteur de l'islam pape ahmad ndiaye noddukat la ca juma sëñ babacar bu mag géew sëñ touba nekk nag ca ndar géej na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram waaye tamit di nuyu alaaji lamin jóob nekk ca budut di gërëm tamit njabootu sëriñ baara siise nekk ca jaxaw ak sëriñ xaalim siise sëriñ cheikh ndigal seen ca njàmbur si Sine ñu ngi koy ziar Thierno Yaya Ba Waaliw Kamil Thierno Aliou Thiam Waaliw Kamil Thierno Alassane Mbaye nag nekk goro ci Thierno Aliou Thiam ñu ngi koy ziar di ko gërëm Serigne Salim Mbaye juróom Mbaye président mouvement def gis Serigne Mbacke Diongu jëwriñ la bu daara siratal al mustahin moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sama baayu bopp di sama Serigne Serigne Mouhamadou Moustapha Sow Waaliw Kamil xalif xalif bu maam Abdoulaye Sow bu ñu ngi koy ziar ak Serigne Ahmed euh, Dame bu maam Madické Sall borom bayu aljana yi nekk ca Daaru Salaam ziar nañ ko daaru daaru sall ziar nañ ko alaaji mbàkke tànjan rabial taala anhu waaliyu kaamin ba laqatu koy ñaan foofu mu nekk yàlla leeral bàmmeelam waaye nag di nuyu tamit sama papa bopp di Baye Niass tànjan coordonnateur daara jëf nekk ci dëkk bu neex ba di Medina tànjan ci Jurbel alaaji mbàkke tànjan di xalif bi ak alaaji omar tànjan di xalif bi yàlla fi yàlla yàgg yàggal lool ñu yàgg fi téwér sëriñ basiru sarr muhaddam da nekk foofu ca Kaolack ca dëkk bu ñu naan na fi ay euh, euh, euh, ay xalifam ñu ñoo xam ne ñoo ko fi toogal di Thierno Cheikh Niang euh, nekk ca no Thierno ñan cer no Baro Niang ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak cer Thierno Bari euh, Fat Fat nekk ca Gambie ñu ngi koy ziar Serigne Fallou Ndiaye alxuraan nekk ca Thiès Kawsara Fall dañ koy nuyu waa Thiel ma xam baxoon Serigne Idrissa Diakhaté Serigne Ousmane Diakhaté imam ratib bi Idrissa Diakhaté ñu ngi koy ziar ak Serigne Ahmadou Seck xalif bu Alaaji Set sek nekk ca Khourdan département de Koungheul nuyu nañ ko Cheikh Abdoulahi Soxna nekk ca Fatick ñu ngi koy nuy ak sama torondoo sama xarit di Serigne maam Samba Dramé xalif bu Serigne Maktar Kala Dramé ci Njimb Dramé ñu ngi koy nuyu ak Thierno Alassane Mbaye taalibe Thierno Aliou Thiam di ko ziar ziar bu amul benn app mbokk kilifa diina yi yàlla leen fi yàlla yàggal may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ñu yàgg fi lool te wér ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yal yàlla leeral seen bàmmeel yal na leen fi yàlla defal jàmm gu sax dakk fa ñu jëm ñi fi nekk yàlla bàyyi leen ñu yàgg fi lool ñu teg si yoonu siraatal mustaqiim ñoom ñoo jara ñaanal ñoo jara sàmm ñoo jar a wormal ginnaaw yàlla yonent bi ak suñu waajur ñii ñooñu ñi nga xam ne ñooñu teg ci yoonu siraatal mustaqiim yàlla nañ fi yàgg te yàlla nañ fi yàgg te wér ku dégg sa tur ak ku déggul sa tur mboolem kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci réew mi yal yàlla guddal seen fan mbokk yi est-ce que xam nga ne assemblée semaine bi dina yëngu ah. gis nga président Macky Sall yat la yorte te caaxaanul de ah. xam ngeen Kigali Rwanda la benn dëkk la boo xam ne mu nga ci euh, boo paasee Niger ca kaw. dëkk boobu fukki at ak juróom ci ginnaaw. dafa moom boo ko xotee ci biir xeet maanaam dafa dañ doon rayante seen biir. Uh-huh. maanaam xeet yi ci boppam tey xeet yi. ay xeet maanaam ñu naan xeet diw lii la. diw séeréer la lii tukulóor la kii joolaa la kii saraxu la ñoo doon rayante seen biir. ña fa ñàkk seen bakkan ëpp na ñaari million doomu aadama. dëkk ba sëngéem. président bii nga xam ne moo fa nekk di Paul Kagame fexe ba yëkkati yëkkatiwaat dëkk bi dëkk bi moo gën a set ci àdduna bi te ay africain lañu ñoo gën a set ñoo gën a yaru te li xewoon seen dëkk ñi fukki at ci ginnaaw dañ doon reyante ñoom seen ay biir waaso yi waaso yi hmm. waa léegi nag ñoom ñoo dem nag ba ci àdduna bi yëpp reconnaître mooy dëkk bi gën a set hmm. kooku nag woo na Macky Sall ne ko soo bëggee sa dëkk ñu yaru te hmm. jub set nii ngay doxalee président Macky Sall nag loolu ñu ko wax da ko yóbbu assemblée ñu voté ko gis nga dëkk bi ci kanam tuuti xaax tufli fo fin nii ku ko fi defete moom su kaso ngay fanaani ñu seeti président assemblée nationale ak ki nga xam ne mooy géwalu président Moustapha Niass mu assoné annoncé ne Macky Sall euh, kii nga ñëw Moustapha Niass ngeen ko defee nii. Moustapha Niass nag président assemblée nii la ko bëggee. dama bëgg nag. xam ngeen ne. ndog dafa euh, dëgër dafa wàcc. dëgg la nag wàcc na. waaw Macky Sall nag. waaw woo na Moustapha Niass démb. am na lu mu ko wax. waaw Moustapha Niass nag mi ngi ñëw. waaw dama bëgg. ngeen xam ne Moustapha Niass amul ku dul ku dul ku dul président. waaw Moustapha Niass amul kenn ku dul président. waaw waaw kay léegi nag dama bëgg ngeen tàccul ko. waaw wayal ko ba mu baax. waaw Moustapha Niass Moustapha general. mooy ku fi jógee léegi mooy ay maire ñëng mooy président groupe parlementaire bu APR di booy. Ah. booy bu nice. dëgg la li mu leen wax yëpp dëgg la. mer na. Ah. nee na Dakar. waaw yaa trop de laisser aller. waaw. ñandu. waaw xaatuf. waqati bakkan. ñuuxit. raay mbelle. yooyu yëpp dana jeex ci dëkk bi. xuloo. xuloo mbedd. baaratali ay jàng ngénte Dakar ne dort pas Sénégal ne dort pas lépp loo xam ne day indi coow ak bruit ak saleté ak tilim day jeex te lii mu bëgg wallaay bu koy indee assemblée dañ koy wote te duñ ko xool ndax loolu lañ koy doxal dama ne xam naa ne député yi nekk ci opposition ñoom ñëpp dañoo gedd ñëwuñu waaye yéen li ngeen bëgg moom la ma ki bëgg li ngeen xam moom la ma ki xam lu ma ki wax. moom la ñu wax. lu ma ki bëgg. moom la ñu bëgg. lu ma ki santaane. moom la ñuy def. jàdd leen gauche. ñu jàdd gauche. jàdd leen droite. ñu jàdd droite. teen leen. ñu daal teen. sëgg leen. ñu sëgg. siggi leen. ñu siggi. dox leen. ñu dox. daw leen. ñu daw. naaw leen. ñu naaw. noppi leen. ñu noppi. lekk leen. ñu lekk. naan leen. ñu naan. xëdd leen. ñu xëdd. dog leen midi. ñu dog midi rek. waaw waaw. dëgg. waay waay waay waay asi bi te weer bi te weeru lu ma ki wax lu ma ki waxul waxuñu ko jàddu góos ñu jàddu góos jàddu droit ñu jàddu droit sigi ñu sigi xunju xunju riigu riigu tàccu tàccu noppi. noppi. signé. signé. wote décret. wote. wote loi. loi. Eh, waay waay waay waay waay waay waay fooy debout. riigu. mooy makki du nit. waaw makki du nit. makki. waaw makki du nit. ni ngeen ko doxalee nii. bu ko gisee dina xam ne réew mi. commencé nañu gëm ne lii mooy lii mooy bu bees bi. bu Macky ne wax leen. ñu bu ne bu ne tàccu leen. ñu jàddu gauche. taw. taw waaxu waaxu dëbbu. dëbbu dëbbu dëbbu ku ma ki muy nënd nii laa ko bëggee ma ki nii ko bëggee ay waay waay waay jëpp asi rëdëbu raasi makay makay ngande ko mooy ponkal bayu Mustafa bayu Taha mooy soppe yonent bayu Shafi bayu Nura mooy soppe yonent bayu Kinza bayu Nazir lay wayal bayu Rashid bayu Bushra mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag kon ni ñu ko waxee léegi nag gaamu madaar ngi nii madaar am na li kiit mera madaar bi nga xam ne nag moom mooy omo bi madaar économique ak bu gi nga xam ne nag moom mooy madaar détail bi nga xam ne dañ ko yombal njaboot gi jetol boo amee dagg-dagg dara bi di tuur jaaxal la ko ci da koy par parfum de chambre yi bureau intérieur ak lépp loo xam ne nag dafa am xet bu sëcc moo ci gaaw bébé met bi wax nañ leen ko kon ñu ko waxee léegi rek lingette la am na li nga xam ne nag moom mooy pommade nourrissante bi am na li nga xam ne moom mooy eau de cologne bi bu ndaw ak bu mag gel l'enfant bi am na bu ndaw am na bu mag tamit waaye am na huile sèche bi nga xam ne moom la ñuy maasee xale bi am lait bi am li nga xam ne mooy poudre bi moom mooy gamme baby met waaye bu leen fàtte ne l'écran moo leen may seen émission Kouthia Show ci ndox mi ak ci poudre bi ak bébé bi ak li nga xam ne nag moom moo baax ci bébé yi baax ci yaayu bébé yi papa mooy céréal ak bi nga xam ne miel lait ak blé la mbokk yi Tigo Cash moo ñëw ci dièse 150 dièse yónnee xaalis foo mënti nekk quatorze régions yëpp am na ko quatorze département yëpp am nañ ko communes yu mag yi mairie d'arrondissement yi koñ yi quartier yi fépp foo dem ci Sénégal am na Tigo Cash léegi yónnee ak jot junni moo gën a tuuti ci li ngay yónnee mooy gën a tuuti ci li ngay jot boo mënee bëgg am cent mille francs suukaru koor un million la ñu génne kenn du ñii dièse cent cinquante dièse Tigo Cash partout au Sénégal fépp lañu nekk mbokk yi dañuy dalal koo xam ne taalibe sëñ Fallou Mbacke docteur la mu am benn way boo xam ne da ko way jëmm ji waaliw kaamin gi di sëriñ saaliw mbàkke yal na yàlla leeral la mu delloo njukkal cheikh saaliw mbàkke ba pare nag bàyyi xel ki nga xam ne mooy sëriñ fallu mbàkke docteur way ko way bu am solo kii ñëw ci kër gi la bokk kii ñëw taalibe la boo xam ne dafa jël boppam jox ko sëriñ fallu mbàkke docteur may leen ko sama sëriñ na nga def ziar nañ la bu wér alhamdulilah nit ñi xam sa tur dégg ko ñëpp xam ne xam naa sa tur tur bi nan la Serigne Saliou Mbodj Serigne Saliou Mbodj waaw waaye nag sëñ Fall docteur sëñ Fallu Mbodj docteur moo ni ma Serigne Saliou Bamsa Sine Serigne Saliou Bamsa Sine Serigne Saliou Bamsa Sine Bamsa Sine boo mu ci yokk mooy safur Bamsa Sine ak xasida la gu may jàng ak xasida boo xam ne da nga koo jàng ba ñu dàkkante la ma tuddee ma ko waaw ndeysaan ndeysaan léegi da nga jël benn way boo xam ne da nga ci way sëñ Saliou Mbacké mm-hmm. borom leer gi mm-hmm. Euh, nga ko ko njukkal foofu. loolu lañ bëgg déglu def nga clip bi. li bëgg na nga def ko en live fii. ñëpp di la dégg ñu barkeelu ci weeru koor gi. ayca waa Régie. Régie. waaw ayca. ayca. waaw. ayca. Vieux Diouf. sar xoole la ñu xool. ayca. ayca. <laughs> ay waay. ayca way ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca jërëjëf ayca ayca ayca ayca ñëw na ñëw na ñëw na yokkal ñu soobi ñu dégg sëriñ Saaliw ku mu jamonool jëfal na la soo ko yëgee jariñ na la soo ko yëgul jariñ na la sëriñ Saaliw soo ko yëgee jariñ soo ko yëgul jariñ na la Sëriñ Saaliw hmm. naa di maaseeg mbindeef jamono mu faatu yi dem sawara kii jariñ na noo ci jamono daana wax ni yàlla sa boroom ëppale ci mindee fi waa jamono sëriñ daana wax ni yàlla sa boroom ëppale mbindee fi waa jamono Mbakke Sëriñ Saalihu Mbakke wax na ni jox leen ba ndaw ñi leen ma def ñoom la say xibaar ba defoon ca mag ña leen lii leer na waa jamono Mbakke Sëriñ Saalihu Mbakke wax na ni Sëriñ Tuuba boole na maag yéen Mbakke su leen jiitoo Mbakke damay taxaw xaar leen. Mbàkke su ma leen xaaree. xaar ñëw leen. damay dëpp ñëw jësi leen. Mbàkke jiital leen topp seen ginnaaw man Saliou. jërëjëf du ma tàggu yéen. du ma tàggu yéen. bàyyi Serigne Moustapha bàyyi Serigne Moutada. nu màggal borom jannatul ma. yàlla Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert. Nabisco Family. dama bëgg xaalis. Tigo ku bëgg jot xaalis nag nu muy def. Tigo Cash. Tigo Cash neex na jëfandikoo. moo fi gën a yomb te mën nga ko fekk fépp ci Sénégal Tigo Cash mooy kalpe bi gën ngir yónnee ak jot xaalis Tigo. yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا lay walay jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi am mbégte bu rëy di jégalu nag ci son bi xam naa ci côté euh, réseau bi la waaye yow boo fi teewee tey da nga fi teew ci ñaari tànk ngir sa jëm yi nga xam ne yaa ñëw sa bopp ñaara bi ngir sa turandoo Cheikh Saliou Mbacké waaye tamit sa Serigne Serigne Fallou Mbacké docteur mi nga xam ne moo ñu xamalante ni te ñu xam ne fi nga toll ci moom mënuñu loo nangu bàyyi nag te doo cof ci sëriñ Fallou Mbacke docteur bi nga xam ne am nga loo doon yëkkati bu ñu toogee ci tànt bi way ko ba ñëpp sa yaram ndaw moom laa bëgg nga tëjee na ñu wàccee ko bërëb bii te xam naa ne fii moom sa place foo nga ñëwaat fi waaw ñamoon ci sëñ sëñ Fallou Mbacke docteur a Cheikh Fallou docteur giñ naa ni yow amuloo moroom Seex Bamba la jël def leen li nga doon Mbakke ngay fali fali yow ibnu Sëriñ Mbakke Moor Mbakke jaaraama Seex Fallu docteur Mbakke def leen ni nu ma maam ay danjaay Mbakke Mbakke Mbakke Mbakke amuloo moroom bay Mbakke Seex Bamba jël def leen li nga doon Mbakke ngay fal di fali yow ibnu Serigne Mbacke Mor. Mbacke bismil ilaahi. Mbacke mooy fi man doktoor. Mbacke Serigne Fallou maam Ayda Ndiaye. Mbacke siyaare naa la. Mbacke Serigne Fallou ñëw na. Mbacke Serigne Fallou ñëw na. Mbacke Serigne Fallou ñëw na. Mbacke ñëw na. Serigne Fallou Mbacke doktoor. Serigne Fallou Mbacke doktoor. bay doktoor. siyaare naa. mbàkke bu nee mu am mbàkke day daal am mbàkke bu du am mbàkke dootul am mbàkke moo doonu sëriñ Fallu mooy turandoom wa ziyaare naa sëñ Fallu Mbàkke docteur sëñ Fallu Mbàkke docteur yaay def dindi oh. mbàkke yaay def dindi mbàkke yaay docteur bii dindi tawati jaami ku sopp Sëriñ Fallu Mbàkke docteur Mbàkke yaay docteur Mbàkke yaay Mbàkke yaay Mbàkke yaay Mbàkke gi ni tawati jaami Mbàkke yoonu murit Mbàkke ñépp naw nan sa xam-xam Mbàkke dimbali nganu Mbàkke gini nganu dimbali nga nu Mbàkke gindi nga nu dimbali nga ma dimbali nga nu Mbàkke gindi nga nu Mbàkke ziyaare naa mu fa Cissé représentant du xalif à Dakar dëkk ca Parcelles Cheikh Moussa Touré jëwriñ la moom tamit euh, di jëwriñ ci Maslatul Huda ak Serigne Adama Cissé Daaro Serigne Cheikh Ndoum nekk ca daaro Wolof ca Ndiaye Ndar ñu ngi koy nuyu nag ca Daaray Wolof Ndiaye ca Ndar ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit mboolem euh, kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci réew yi Alaaji Basirou euh, Touré xalif bu Daaru Rilwan Alaaji Habibou Touré ca Montagne ba Arafat Alaaji Lamine Touré imam ca Daaru Rilwan Alaaji Ousmane Touré ak Alaaji Mansour Touré Alaaji Babacar Touré Serigne Cheikh aujourd'hui Serigne Xayra Touré ak Serigne Ahmadou Touré xalifa Serigne Fallou Touré alaaji Hafiz Touré alaaji Ngin Touré alaaji Mourtala Touré alaaji Tahir Touré ak alaaji Basir Touré ak alaaji Mansour Touré ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di ziar ak Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré Serigne Babacar Ndiaye raqala ci Serigne Mansour Ndiaye Serigne Aliou Ndiaye doomu Serigne Mansour Ndiaye la ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di am mbégte contentement ci Cheikh Mohamed Diop nekk ca Mamel Mohamed Abdallah Thiam président fondation Rasoul moom tamit ñu koy gërëm maman Fama Sila yaay ñanga guñu nañ ko ak jàmbaaru Serigne Djili Abdou Fatah Mbacke di taalibe maam Cheikh Ibra Fall di Cheikh Hassan Fall nekk ci cité Comico Géejawaay ñaankat la ñu koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd wér gëram Cheikh Babacar Faye taalibe Sidi Habib Dame Niass nekk ca jëkk bu naan Dias ak maam Astou Cissé euh, Ciss nekk nag ca Dias euh, ñun def ñu koy ziar ak suñu Serigne Cheikh Mahi Aliou Cissé nekk ca Medina Baye ca Kaolack ziar nañ ko gis nañu jëf ju rafet bi nga ne mu ngi koy jëf ko yàlla defal jàmm dédicace à Dioma Sarr depuis Yoff Ndëngaañ bàjjanu Adama Sarr fan sa Kouthia la ñu koy nuyu di nuyu tamit Serigne Maam maam Mor Mbacke bu Serigne Abibu mu Serigne mu Ndumbe Xabaan moom tamit ñu ngi koy ziar Serigne Xaadim jeng def gis nekk ca Touba suba dinaa wane su ma xarit la waaw damay damay wane subam suba yàlla ko yàlla defal jàmm nit ku yàlla baaxal la waaye dafa am benn xale boo xam ne ndeysaan euh, xale bi yaay ci boppam moo ko boot yóbbu ko ba pare am fu mu ko bàyyi xale bi waaw daf ko boot yóbbu ko am fu ko bàyyi xale bi nag képp koo xam ne dénk nañ la benn xale boo xam ne. foto bi dama ko yéex a yónnee vieux Diouf mais suba dana génne photo bi euh, jox ko vieux Diouf xale bi euh, euh, yaayam moo ko bootoon bàyyi ko ci benn kër képp ku ci for xale bu boo xam ne mu ngi ci diggante deux ans. mën nga ko indi fii ci TFM wala RFM wala nga woote ci numéro téléphone bi nga xam ne moom la ñu yaakaar ne bu ko buñ ko jotee euh, xale baa ngi tudd Alaaji Babacar Ndiaye mais comme ñaari at du mun a wax mun ngeen jël numéro téléphone bi 77 390 25 08 77 390 25 08 nga laajte Ndeye Anta Ndiaye ma nga dëkk jàmm gën moom mooy raq ci yaay euh, ki nga xam ne mooy xale bi réer ñuy ñaan yàlla na ko yàlla feeñal ci barke yaa xàqa waaw xale yi réer moom wax na yàlla gindi ñëpp ndax àdduna bi léegi dafa dafa doy waar waaw di nuyu tamit xadra euh, Mounas Tour du monde jeudi lay am le 23 euh, euh, may Mounas Mounas mu ngi invité toute l'équipe de Kouthia Show ak ñëpp pour ñu teew ci bés boobu dédicace à Madani Tall chéri Adja Fall borom Saint-Louis foofu ca borom Saint-Louis borom Yoff kooku moom dañ ciy kontaan pour may ko ko dédicace à Dabax Ndiaye depuis Rufisque cousin de Adama Sarr fan su Kouthia de la part de Adama Sarr waaye tamit nuyu Samba Thiam depuis Paris Cheikh Niang maire de Alfay Jolof ñu ngi koy nuyu ak Maman Ndoye ak doomam bébé Fa papa Bo depuis du Yoff ni nat euh, dédicace à Soxna Diatou Gueye ak euh, joyeux anniversaire a Maguette Seck de la part de Maman Ndoye depuis Mbour ñoom ñëpp ñu leen ñaanal kenn lu waaye di am mbégte contentement ci bés yi nga xam ne suñu kanam euh, laylatul xadri Muhammad Muhammad di yaatu le islami yaatu bi Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène porte-parole de la famille Ndiéguène mu ngi koy amal samedi le 1er juin 2019 bi incha allah ñu ngi koy amal nag euh, ca fi nga xam ne mooy Gueule Tapée immeuble Diaz près de l'ICED de la Fosse na ci ñëpp teew ndox am solo la mbokk yi. Vieux Diouf moo nekkoon ci réalisation bi. feggoo ki nga xam ne moom mooy euh, am top euh, am am am Diop di grand ingénieur de son. Demba Ndaw benn caméra ñaari jëmm. lumière yi euh, kee fi jaaroon di ja euh, euh, tonton Pierre ci dem ak dikk bi Kara sécurité ñu ñu tamit képp koo xam ne waaye ñuy sargal kenn ci xale yi koo xam ne dañ ko takk waaye mais nee na woon nañ bàyyi bu mu jël ay ba pare muy soo wax turam ñëpp a ngi lay souhaité heureux ménage ki ñu takk ci xale yi Kouthia Show am na xale bu jigéen bu fi takk te takk bi ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fa nag sëy bu neex ndax wax dëgg yàlla moom xale bu yaru la nag gis ko Euh, ci télé bi la ko gisee. waaw nekk fu sori gis ko. daal koy gisul boppam. lijjanti ba takk ko. ndax nee na gis na xale bi daal mu neex ko. kon éducation bi am fii ak yar bi am fii noonu ñun daal ñun mënuñu leen jëriñoo. waaw ñun mënuñu leen jëriñoo dañuy mun a wane leen rek. yàlla jàpp leen xale yi macha allah rafet nañu yaru nañu am nañ expérience. ñu ngi nii. waaw ku ci bëgg rek moom moom te caaxaan tax laa bañ a jóg seen seen nijaay Ndaw mu ngi fi Demba moom xam na xam na ñiy caaxaan ak ñu dul waaw mais kii ko takk ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla na ko yàlla jubale ki mu takk kii mu takk tamit yàlla jubale ko ki ko takk ba yàlla defal leen jàmm ñun ñëpp nag ndeysaan wax dëgg yàlla yàlla defal leen jàmm takk bi nag barki démb la euh, euh, kon nag euh, ñu ngi koy ñaanal moom tamit sëy bi nekk sëy bu neex te barkeel waaw yàlla dafa ko ci jàmm dafa ko ci njaboot xam ne seen patron bi daal ginnaawam tàng na seen patron bi daal bi mu takkee ba pare ginnaawam gi tàng na waaw am na ñoo xam ne nag moom yaakaaroon na ñoom la ñuy njëkk takk boobu léegi te ñoom nag moo wax dëgg yàlla lu ne def nañ ko leeral nañu dangal nañu mel nañ leen neex waaye yàlla daal moo dogalul ci ñoom dara waaw ngir yàlla yonent bi ku ma di damay leen di woote jël leen sama numéro téléphone dama ko joxe direct ah, sa numéro téléphone bi 77 235 83 88 mooy sama numéro téléphone ñanga ak jaara ngir yàlla ak yonent bi dama leen di maye laajuma ci dara kaay kaay leen kaay leen kaay leen kaay ña kaay ak jaara doo kaay parce que vraiment sonn ngeen quoi ku leen gis yaakaar na ngeen am jëkkër kii dafa nànk euh, xol dafa dafa sonn na bay wax kay ku may takk yàlla dafa nànk rek kii dafa war a sëyi kii tamit dafa war a sëyi ñaar ñi bu ñu sëyee dafa naa ne après le reste amul benn problème waaw Vieux Diouf ñaar ñi et eh, dama daw xool jëlee ma leen macha allah ci koor lañ nekk mais ñii ku leen am am nga jabar ah, waa ku leen am am nga jabar kii yaru na mën na togg kii yaru na mën na togg te mën na sëy waxtu du ko raw kii mën na togg yaru na mën na sëy te waxtu du ko raw kii set na civilisé na te lu ma neex ci boppam dafa tubaabee bëggul dara loo xam ne day yàqu ci këram yaar ñaari xale yaa ngi nii yeneen yàlla dimbali may leen ci kër ñaar ñi bu ñu amee la reste moom mun leen bàyyi xale yi fi nekk yom leen duñ sëy te yéen ñaar sëyu leen yéen leen baare rek yàlla nga tàng gannaaw ah? ma ne yàlla nga tàng gannaaw waaw gannaaw rek maa ngi ñaan ci barke Seydina Mohamed ah gën gi mi def kër balaa jeex parce que war ngeen dem nag ut borom kër dégg ngeen ayca lakk leen dem seeti Abu Bilal waxtaanu koor ci yor yoru ko Abu Bilal bi moom jërëjëf Umu Kalsum moo maye yi ñu ngi am waxtaan bu sori di gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Serigne falu Mbacke docteur di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak Cheikh Saliou bi nga xam ne moo fi ñëw léegi way fi xasaayit yu neex di ko gërëm moom tamit yal na ko yàlla bàyyi baatam mu yàgg fi loolu te wér Serigne Fallou Mbacke docteur dafa nit koo xam ne wax dëgg yàlla dafa wuyoo turam. docteur mooy faj docteur moo lay faj ci sutura xam sa jàngoro te boo leen tasante ci mbedd yi du la wax mukk ne yow maa la fajal sa jàngoro ab docteur bu ñu lay demee ba koy wooyee mooy yaay faj jàngoro yaay dalal yaay aar yaay sàmm Serigne Fallou Mbacké docteur fa ma jaar moom ku fa jaar moom xam ne mooy yelloo turu docteur maa koy sant di ko gërëm di ko xam ne nag nit ku yàlla baaxal nit koo xam ne yàlla may na ko loo xam ne ku ko jege rek danga xam ne kii ab mayu yàlla mu na ci moom mu jël nag ci jikko turandoom loo xam ne dafa feeñ ak lu làqu sëriñ Fallou Mbacke docteur defar na yar na sàmm na jàngale na xam na joxe na mën na macha allah Abu Bilal sëriñ Fallou Mbacke docteur ba muy samp ca fi nga xam ne moom ca digg yëmbal ak Malika boobu àll la woon kenn dëkkagul ba mu sampee ba xool gis ne sori na lool woon na du yàgg ab diir am ñu ma wéttali te wër ma te waxtu boobu ku ñu waxoon na kaay dëkk fii da nga naan déedéet waaye tey moom quartier boobu sax war a diwaan boobu ña dëkk dañu waroon ëlbatu jox tur ba ne ko cité sëñ Fallou Mbacké docteur bu ñu bëggee jàmm ak salaam aw taw féex ak nangu buñ ko nanguloo loolu rek te xam naa du leen ko wax waaye ku am xal ba def ko da xam ne bokk na ci dëkk bay gën a naat ci gox googu waaye dina nekk dëkk bi nga xam ne mooy ëpp sécurité te nekk dëkk boo xam ne yàlla dina fa wàcc tas ak barke suñ falu mbàkke docteur dañu koy sant ndax ku yàlla baaxal la ci baatin ak ci zaahir saa yi ma koy tudd fii dama naan docteur ci zaahir ak ci baatin nekkul danteg nekkul faan waaye faj na faan fañ na daan danteg kon mbokk yi waxtaanu koor ci yor yoru koor su ko defee tey damay taxaw rek pour def ay kéemtaan kéemtaan yi mooy képp ku fi am soxla nanga ma ko ñëw wax ma faj ko rapidement ndax dañu nekk ci bés boo xam ne damay faj soxla mooy talaat salaamaaleykum soxna si salaam oh, waa kay sukkal waa kay waaw alhamdulilah lu la jaaxal waaw mu dem marché rek am wujj mu dem marché gisoo ko. waaw yaay aawo wara mooy ñaareel. man yaay aawo. waaw ma takk nga lu jafe te def nga lu jafe. jigéen bu dem ba takkal wujjam jëkkëram wujj ba pare wujj ba réer nga koy seet di wër ci télé rajo yi kenn gënu nan la tudd. ñanga ñanga la tudd. bu soobee yàlla kañ la génn. dafa xëy dem marché rek. waaw waaw xanaa kon boobu léegi xëddu leen ndogu leen. ñaata fan la tey. tey la ñeenti fan. jox ma téléphone bi. ñanga dàqal mu ñëw ñanga dàqal mu ñëw yëkkatil way bi ma xool. maa ngi ñëw ma ñëw wàññil ma wàññil ma loolu wàññil ma musique bi tuuti fan nànk allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sànq bi na nga def waaye mbaa yaa ngi ci ñu ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah yàlla sant yàgg eh, ñun dañoo for benn xale bu jigéen benn mag mu jox ni numéro bi da for benn mag. waaw muy xaw a mel ni kuy soxni tànk bi. waaw. waa ñu jox ñu mu jox ñu bindal ñu bi waaw te dafa réer la ñun ñu gàmmi ngeen nekk. waaw ñu ngi gàmmi ngeen ko foree. gàmmi lañ ko foree mu xëy. est-ce que di ma ko di ma ko mën a yebal ci oto yi ñëw léegi. dafa guddi guddi. na trop moom. baax na defal naa ko coupelle. waaw coupelle coupelle nu mu nu mu tudd alors bi coupé na. yëkkatil yëkkatil way bi. Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi kan yow la kan. foo nekkoon Gambie wala Sénégal. <laughs> waa demoon sama ndox sama kan. ah <laughs> da demoon. maa yóbbuwoon sama bopp yàqal nga ma sama noos te yow la kan. maa ngi doon noos. wuy ma ah. yóbbu ko jërëjëf as. yóbbu ko eh, damay dellu de. foofu neex na Thierno Moulay yóbbu ma yóbbu ko Thierno na dana ko tey. ma ne. duma laal rab. waaye ñuy wax ne mën nañu faj rab nañ ko jël yóbbu waaye kuréer mun naa laa gindi kuréer mun naa laa feeñal yàlla may na ma loolu. ndeysaan est-ce que xam nga ne bu fekkee ne dafa am loo teg mu réer la te nga bëgg mu feeñ ma jox leen secret bi tey ngeen xam ko ah. bu la dara réeree nga bëgg mu feeñ mun nga bañ a dem ci ñi nga xam ne dañuy def xarxa foofa danañu lekk sa xaalis te li ngay seddu feeñ ah. yàlla feeñal na lu réer uh-huh. yàlla nëbb na lu dul feeñ waaye ci biir secret yàlla am na lu ñu naan yaa xàqa uh-huh. bu la dara réeree nga wérdu ko mm-hmm. am loo ko booleel def ko la la dana feeñ sama xam-xam na du ma ko maye ndax boobaa da ngay gis ku ko jëfee ak jàmm ne ku am soxla na nga ñëw waxtu bi daf may dab ku am soxla na nga ñëw ma faj ko ñaar laa mën a jël ku am soxla na nga ñëw ma faj ko ku am soxla na nga ñëw ma faj ko ku am soxla na nga ñëw ma faj ko yaa bind woon sànq fële déema li ngay wax nee na dafa am lu mu bëgg ndax mën naa ko nee na ndax mën naa jël nit def ko doomu tubaab maanaam ndax mën naa jël nit dekkel ko wara ma def ko loo xam ne dañ koy gis xam ne lii du dund nee na dafa am ku ko réer te xam na ne kooku dem na yàgg na neex ndax mun naa ko indi lu nuroog moom bu koy téye nee na doomam bu jigéen xees pecc dafa réer yàgg na yàgg na nee na ku bëggee gisaat xool bu doon dund moom tey nan lay toll ak nu mu mel danaa la ko wan di nga ko xàmme dama nga toog docteur Baage bu Bilal. ustaas Abu Bilal. yaa ngi faj ajooye ustaas Abu Bilal. Demba Ndaw jëlal ma xale bi. docteur xool leen xale bu baax baax yéen ñii seetaan. xool leen ki may indi ak xale bi ñoom ñaar ndax dina am différence. xool leen kanamu xale bi bu baax a baax xool leen kanamu xale bi bu baax a baax gis ngeen xale bi ni mu mel xool ngeen kanam gi bu baax maa ngi nii teg ko fii docteur ma lu ñuul docteur baange fii dara nekku fi fëggal fëggal taxawal na teel na le lii réeroon oustaz Abou Bilal macha allah ba ñu xam ne yaa ngi faj lii réeroon oustaz Abou la laa bëgg a dégg seetaan nee leen wazimaanu wazimaanu wazamaanu wazamaanu wazimu zamaanu wazimu zamaanu teel nii teel ma dem wan leen ne fii dara nekku fi pour muy leer dara nekku fi fii dara nekku fi xam ngeen ne fii dara nekku fi xam ngeen ne fii dara nekku fi kon jeex na léegi waaw ay ca yëkkatil way bi docteur ca kaw ca kaw ca kaw. teeko teeko teeko xolal xale bi xool ko dem ba dendal ko xolal xale bi xool ko lu ñu bokk ak lu ñu nuroo ana ko indoon na ñëw ana ki na ñëw wana ko wana ko dindi suñu biir xool Madina képp kuy julli yaa ngi ñaan yekk ba Medina su ko fa ñaan solidarité un orphelin un boubou troisième édition ñu koy pour la protection des enfants défavorisés et orphelins du Sénégal présidente di madame Aïssatou Thioune Gueye jeudi lay doon le 30 euh, mai 2019 foofu ca chambre de commerce bu 70 eh, 49 war nga def ci Tigo 76 775 53 34 tamit eh, foofu benn bàjjëlu gox foofu ca kawoon moom tamit day def eh, séddale maanaam jël ay yére ak ay dund séddale ko ñi nga xam ne ñoo ñi seen loxo jotu seen ginnaaw mu ngay amee foofu nag ca kawoon le 30 juin lay doon moom tamit ma ngi ko fay jëfee foofu ca kawoon di nuyu tamit. Euh, wax joyeux anniversaire ki nga xam ne mooy loota di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ñaanal jàmm tamit euh, li nga xam ne mooy euh, wér yaram bu ànd ak naataange ak teranga de la part de ñanga et toute l'équipe Kouthia Show ñu koy souhaité moom loota joyeux anniversaire Khadim Dieng borom def gis ñu ngi koy nuyu Serigne Mbacke Jong moom tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye di amaat mbégte contentement ci mbokk di leen gërëm di leen sant mbokk yi dañuy tëj émission bi ndax waxtu bi jot na ñu fàttali leen nag dañuy dem ànd ak Tigo Cash ci Jazz 150 Jazz waaye tamit ci Madaar ak li nga xam ne moom mooy Crisco ak euh, l'écran boole kook euh, bébi mètre moom mooy li nga xam ne moo leen may seen émission Kouthia Show mbokk yi ki nekkoon si réalisation bi di euh, Vieux Diouf ñuy namm ki nga xam ne nag moom mooy Fatima Evans di ko ñaanal bon rétablissement mu ñëw ak jàmm fekk fi jàmm waaye tamit bàyyi jàmmam këram ñëw fekk fi jàmm ñu ngi koy ñaanal ñëpp yàlla may ko jàmm di wax tamit heure ménage à kenn ci ñun ci groupe Kouthia Show koo xam ne dañ ko ci may jëkkër yal na ko yàlla defal jàmm mbokk waxtaanu koor ci yor ak El Hadj Abou Euh, mbokk yi dañuy waxtaan ci waxtaan bu am solo waxtaanu koor ci yor yoru koor su ko defee ma continuer def kéemtaan yi ñu daal di tàggatoo ndax tey ci talaata gi dama war a fanaani ca kaw asamaan si waxtaan ak ay ay mbokk yoo xam ne ñoom dunduñu ci suuf su ma fi jógee damay dem gane ji sama benn xarit boo xam ne ci juróom-ñaareelu asamaan fa la fanaan kéemtaan baa nge oustaz Abu Bilal mu demee léegi ndax waxtu bi ñu wax ak yéen maa ngi yéen ci kanam tuuti rek danaa dem New York xool place bi nga xamee ne ku ci Kouthia war a yëngoo le 6 juin lu fa yàgg nag ndax jëluma benn avion damay dem léegi wàññeekuwaat léegi si oustaz Abu Bilal. macha allah barke démb ba benn pitax daf maa woo. pitax daf maa woo ci mbedd mi côté sàndaga bu fekkee ne umu kalsum bi mun na ñëw ci suuf nànk benn pittax daf maa woo ci côté sàndaga waaw may wax ak pitax bi benn waaye na ma dof na ndeysaan. Hmm? bi ma ne bi mu ne ma dof na. benn ceeli bette ko ginnaaw mbéj ko mu ne ku ma mbéj. <laughs> yaay waxtaan ak bii taax yee oustaz Abu Bilal. barki démb ci ngoon balaa may jël kenn ci yéen barki démb ci ngoon damay dox ba si yàgg tëli bi woo ma waxtaan ak man waaw tëli bi est-ce que xam ngeen loo xam ne ñu ngi koy sàgganee te mooy solution bi saraxu dakaar ah. Abdou Diouf da ko doon génne Ablaye Wade di ko génne ki fi toog nag xaw ndax mu ngi koy génne am déet waaye yëguguma ko accident yi ngeen dégg am na lu ñu war a génne muy sarax hmm. sarax boobu duñ ko def koppar dañuy dem jëndi ko génne ko ndax yàlla nee na boo liggéeyee yow sa bopp ba pare ba am sa xaalis war ngaa génne asaka gouvernement day génne asaka président Macky Sall bu fekkee yaa ngi may seetaan coow lii ngay wax ne mën nga ko régler ci ay policier gendarme du ñuy daweeg moteur ak permis du solution bi génnal sarax macha allah jox ñi war a yelloo ñu jox ko te nga jël nit ñu war a toog seen place nga defal leen te teral ñi nga war a teral feeg defoo loolu saa yoo xëy yaa ci problème boo xam ne boo fayee fii bii tàkk man mi di wax ak yow bokk naa ci ñooñu nga xam ne da leen a war a teral boo ko defee moom la soo ko deful noonu la ndax fanweeri at ku toog di bégal ay doomu aadama te mu suñu laa tappal garab bu ko yàlla tappalee garaat raw na la te dootu la wàññeeku ci yow ndax dem na bu ko déggee nag dina ko jëfee bu ko déggul mooy loolu si zaahir kon waxtaanu koor ci yoor yooru koor ma fàttali ko nag ñaanuñu ndimbal de jëf la rek buy dem ay cakaay bu dee xaalis la am naa ko mën naa ko te yàlla koy joxe loo bëggoon yow waaw waaw waaw sama pap moo ma yónni woon léegi mag bu toll na yow kilo ji courant ah. courant kër ga laa waaw waaw xaalis bu de moo may réer xaalis bi moo réer dafa réer xaalis bi ñaata la woon vingt mille francs dafa wadd doo gàccel waati goo mukk yëkkati sa loxo fii dara nekku fi sa diggante yàlla boo yee dem dàll yi nga soloon ma xool dàll yi fi dara nekku fi dara nekku fi. dara nekku a ko gis. ah bi daal bi nañu yónni. waaw booy dox. booy dugg ci jumaa. Mm-hmm. tegal tànk ndey joor. boo bañee liñ lay yónni mu réer. booy dem bul jiital càmmoñ. Mm-hmm. booy dugg ci jàkka. Ah. ndey joor. Ah. booy labati ndey joor. booy seet sa sëriñ ndey joor. Ah. kenn gaafalu ko waaye dafa dumooyu mhm. dàll baa ngi nii danaa ci génn na ci kéemtaanu yàlla pour wan ne président Macky Sall man Abou Bilal soxla ma xaalis